yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur euh, maa ngi gërëm sama yaay di sant sama di euh, yërëm sama baay bu baax euh, di nuyu nag mbokku Sénégal yëpp mbokku amateur mbokku promoteur mbokku tëggat ak wéykat di nuyu les amateurs de la diaspora bu baax parce que ñoom itam ci lañ bokk ñu dellusiwaat tey lundi.

ci woy ba nag euh, Ndeye Fatou mais Ndeye Fatou ñëwuloon dafa yoone woon ben dañuy bëgg a wax nag ci organisation bi mooy euh, bunt bi tolloon a ubbi BI c'est comme d'habitude rek deux mille trois mille euh, moo fay am léegi lamb ji mën nañu wax ne àlla daw mi na amateur yi wuyse nañu taxu ko bari noonu nag mais amateur daw wuyse nañu leen ko mën a waxee seulement euh, mbër yi ñoo wuyu suwul mbër yi ñoo wuyu suwul parce que mën naa wax ne parce que ñaari calibre yu mag ñoo fa nekkoon te kenn sax raar na gëjoon nañ ko gis muy Assane Diop euh, le vainqueur du tournoi euh, Mboudaay daal moo fa nekkoon ko koo xamante ne nit ñi mën nañ ko rañ bu baax Mboudaay ñi nga xamante ne mi ñu nam bu baax sama classe bi yëpp parce que Mboudaay lañ fa gënoon a xàmme Assane xamoon nañ ko mais Assane dafa raaroon donc Assane moo jëloon lamb ji au détriment de Mboudaay Mboudaay moo dëkk Nguñaan di rakk ci Ngaljon waaw euh, lamb ji noonu la demee euh, en lice aussi euh, était treize lutteurs ñoo fa nekkoon fukki mbër ak ñett ñoo nekkoon ci tournoi bi franchement tournoi bi taxu koon taxu koon bëri daal xam naa gàmmu gi la ou bien am na mbër yoo xam ne aussi démarré gu ñu seen saison démarré gu ñu seen saison ak gàmmu gi aussi xaw na ci xaw na ci xaw na tax ba mbër yu bëri ñëwuñu waaw loolu daal moo xewoon dimanche

arbitre dafa dóor baare ko mais ñu bëri na gisuñu dóor ñu bëri ngadd la ñu jàpp ne da ko def te ngadd moom euh, ci lamb la bokk mais euh, règlement bi tam xaw a da ko da ko tere ngadd yu yi dañ ko dañ ko tere mais mbër bu ngàddee nit au moins da war a jox avertissement mais pas pour pas pas pour nga disqualifier ko mais euh, d'accord nañu sax mu jox avertissement ci côté boobu mais parce que ngadd moom mënul ñàkk ci lamb mais bu xawee am doole tuuti rek foofu avertissement la war a doon mais ngadd ak dóor ñu seetaan xam nañu ngadd xame ñu dóor ngadd ak dóor bokkul franchement dóor moom règlement bi li mu jox c'est boo dóoree bëri simple boo ci dóor dañ la war a dañ la war a dañ la war a disqualifié parce que règlement bi loolu la wax mais nag fii moom euh, gisuñu dóor ngadd la ñu gis ngadd nag euh, avertissement la war am waru nekk waru nekk dóor loolu daal la ñuy gis loo xamante ne mën nañ ko euh, reproché Tamba su sinon lépp à la daw men waaw franchement lépp daal à la daw men lépp jaar na yoon waaw lépp jaar na yoon franchement organisation bi c'était impact

on a leen quand même un peu du respect et puis kenn mën ko gën a respect euh, loolu aussi c'est normal parce que euh, réunion mom euh, ben nit mën nga wax mais pas wax boo xamante da xawa dépasser quoi donc moom franchement retour nañ ko ci réunion waaw mais liñ ci mën retenir dal moy euh amna ben ancien lutteur bu jël parole ne les mom promoteurs yi ñu ci bëri seen interpersonnel lañu xol ci lamb ji légui loolu bokku na ci li nga xamante mo yak lamb euh, ñu avons fa occasion pour vous dem ci terrain gal gi les deux galas aussi ont été encore évoqués les galas entre Ibamar, Galbi et Grand Yoff euh, jot nañ ko fa évoqué euh, am na li ci président Bira wax nous na ñoom ci décision parce que nous tënkuñu fenn bu leen neexee mën nañu jël décision d'art d'art. mais est-ce que man je me demande la question est-ce que bu avez décision boobu dana am ñoo xamante ne dana leen arranger parce que boo xoolee tey Grand Yoff nous na ñoo xam ne bëgg nañ fa accès mais accès. Euh, jotewuñ fa seen na ko jotu mën a tëgg Grand Yoff parce que dafa xaw si charge lool en plus boo xoolee aussi c'est les mêmes personnes ñooy tëgg Grand Yoff te boo xoolee bu ñëkk am na association yoo xamante ne ñu ngi doon tëgg Grand Yoff di tabax ay église di tabax ay jàkka di ci defar ay école di ci defar ay dispensaire te loolu yëpp ñoo mënatuñu am accès pour di ba dëgg ci gaal ci Grand Yoff loolu gën na tax ba nit ñi gën a daw dem gaal gi bokk na ci li gën a tax nit ñi gën a dem gaal gi ak concurrence bu métti bi

ben gala dans le seul département ñu biñ ci waxtane ba juboo après dañu demoon seet Alioune Sarr Alioune Sarr ko mais lutte avec lutte simple aussi mën nañu def noonu mën nañu def noonu buñu def defoon noonu sen bir ne bëggatuñu ben gala di am terrain gaal gi hein Grand Yoff kessé parce que Grand Yoff mo fi des ben arène bo xamante mom moom la reconnaître ici au Sénégal fi ci Dakar mom kessé mo fi des comme arène Dakar hein donc ñom buñu ñu defoon buñu démé mais CNG loolu du ko bañ CNG da leen da koy de len koy da len koy accorder mais manque bobu mo mun am sen bir donc loolu na bu ci index euh, n'a rien fait à ce côté là CNG defu ci dara les problèmes de deux gars là, CNG defu ci dara dara la ci CNG deful dara CNG defu ci dara waaw defu ci dara mais gars yi y ci promoteur yi la promoteur yi ñoo manquewul les promoteurs yi ñoo manquewul ñoo jubawul ñoo bokkul ñoo doonul benn te dañuy wax association des promoteurs mais association des promoteurs boo xamante ni ku nekk day xëcc jëmale sa kanam ah jëmale sa mais loolu aussi bien est-ce que je dis que c'est une association même foofu am na fi fi biraan les les l'éclairage là au niveau au niveau au niveau de Ibamar wax na ko fa ne dégguma kenn ci yéen wax te pourtant c'est normal aussi parce que éclairage bi bu guddee éclairage bi xaw faible te loolu aussi constat boobu promoteur war nañ ko constaté wala amateur yi constaté ko ba wax ko wax ko CNG mu ko defee ñoom ñu xool naka la def bi amélioré ko hum, Ibamar yenn saa yi boo duggee ci toilette yi da ngay waaru te loolu yëpp yaakaar naa ne j'espère que c'est le rôle du du président du président des amateurs ah, parce que lu mel non, du dans du daan jëkko da ko doon def toilettes dañ ko war di vérifier xol ba xam na set am setul bugala amé bu daal am ngoon le matin président des amateurs dafa war a dem be fofu dafa war a dem be fofu xol ba xam ndax toilette set na même jullikaay bi aussi euh, benn bassin laa fa gis dafa war am ñaar bu ci ñetti bassin war am ay satala yoo xam ne ko tek à côté pour euh, heure julli bu jotee gaay pour japp bi day yomb mais lool yépp xaw na fa xaw na fa manquer té lool yépp pourtant c'est à dénoncer loolu yëpp dafa xaw manqué té lool dañ ko soxla bu dé au niveau de gal gi amo fenn foo julé tu obligé il faut nga genn be ci biti ah dugg ci biir kër yi di ñaan fooy jàppe wala nga jënd ndox di jàpp ba pare di àbb si yaara parti par là foo foo kii te loolu yaakaar naa ne waroon nañu réserver benn espace bu ndaw terrain gaal gi foo xamante ne lieu de prière lay doon. lieu de prière même buñ fa mënul indi ndox aussi euh, buñ ñu fa mënul installer un robinet ñu def fa benn ñaari bidon yu 20 litres wala ñetti bidon yu 20 litres def fa au moins au minimum 4 satala voire 5. Hmm. bu ko defee lal fa benn genre napp euh, yoo xamante ne ay une dizaine lay doon wala une cinquaine de napp wala benn bassan bu yaatu wala ñaari bassan bu ko defee gars yi mën fay jullee mais yenn saa da ngay dem au niveau de terrain gaal gi pour foo jullee jullikaay sax da lay pour foo jullee sax problème lay doon ah te franchement loolu yëpp yaakaar naa ne waroon nañ ci waxtaan ah, loolu yëpp aju na aju na aju na waxtaan mais lamb ji daal li ma la ci mën a kii na lamb ji daal li ci li problème bi yëpp mooy intérêt personnel moo ci bëri intérêt personnel moo ci bëri saison bi ubbi na et franchement association aussi war nañu affilier les associations de la lutte simple war nañu affilier au niveau du CNG hmm? euh, te ñoom ñëpp dañu war affilié parce que bu affilié wul CNG du la reconnaître du la reconnaître donc les associations qui parlent euh, qui qui ñi xamante ne dañu dox ci lamb dañoo war affilié ménager bi daa war affilié ah loolu yëpp même les écoles de lutte là et les écoles yëpp dañoo war affilié au niveau du CNG parce que kooku ñu def au CNG du la reconnaître waaw te nit yaakaar naa am na loo xamante ne boo ko bëggee di casse wala bu ko di def war nga nekk en phase avec le CNG waaw tu peux tu dois être en phase avec le CNG ba pare ben, euh, bu ñu jógee ci lolu ñu bëgg ñëwaat encore rek sur euh, euh, euh l'augmentation des billets et fofu ñoom dañu xol non la limite la limite la limite du de la mise à Grand Yoff mise bi ñu limité 1 million ñoom li ñuy wax mën nañ leen kooku nangul parce que Grand Yoff tey fa demoon par exemple bo limité woon mise bu bàyyi gars yi dafa teg ay 2 millions wala ay 2500 man na indi catastrophe un bonjour comme ni ko stade Iba Mar defee mbir boobu daanu noonu am ay quelques blessés loolu sant yalla la parce que bu amoon ay mort ci lay gëna graw heureusement nekkul sax nekkuloon sax ci bëre simple ci bëre dor la won hein té bu nekkoon ci bëre simple mënon nañu fa jaar ay téré téré ibamar Mar fa faw dotul am mais heureusement mais nekkul nekkuloon ci bëre simple ci bëre dor la amee woon mais loolu aussi est-ce que ka boobu mënul mënul ñëw ci euh, Grand Yoff bu ñu augmenter mise bi hein. Grand Yoff c'est très exigu dafa xat

sur euh, surnombre bu ñëwee aussi CNG dañ leen respecté dañuy wax ne CNG moo jox autorisation pour ñu tëgg ñu ñu ñu ñu tëgg foofu. c' est pas le même cas nag avec terrain Gaal parce que terrain Gaal gi c' est terrain libre dafa yaatu mën na fa teg ba 5 millions ça dépend du promoteur. parce que terrain ba yaatu na ça dépend ni ñu koy organiser ça dépend ni koy organiser pour mën ko kii rek ba nga xamante ne dana mën a contenir des milliers de milliers de personnes terrain Gaal bu ñu koy tekkale bokkut. mais euh, man mon problème est que en est les deux dates là moom bu ci amone solution amna li ci jax jag wax nak le promoteur du peuple là ko wax le promoteur <laughs> du peuple franchement amna na ay dates yo xamantene amna am Iba Mar jot nañ ko sécuriser au niveau de Grand Yoff ba nga xamante ne du am coïncidence lolu c'est à saluer c'est à saluer te mom moko wax euh, ci réunion bi lolu c'est à saluer franchement japp lu mot ay 5 ou 6 dates au niveau du stade Ibamar Mar sécuriser ko Grand Yoff fay ko Grand Yoff ba nga wa Adrien Senghor bi perte date mais kenn du fa tëgg jour bobu parce que c'est déjà sécurisé dañ ko fay xam nga lolu franchement luy doxal lamb la luy doxal lamb la donc bu wax né amna promoteur yo promoteurs ce sont des promoteurs personnels c'est intérêt bopp la ñuy ak moy ñi ñi ñiy dundee lamb ak ñuy dundal lamb jax sa bokkoo ci ñi xamantene dañuy dundé lamb day dundal lamb parce que lolu aussi euh, franchement eh, xamna né problème sécurisation bobu euh, ñàkkul dem na donc te idée boobu mën am mu jóge ci moom wala mu jóge ci mais képp ci mu munti jóge daal fekk moo ma ci donc c'est à saluer kooku contribuer ci lamb kooku day dundal lamb waaw dundal lamb nag moo gën dundee lamb ñi fi dundee mon ñoo bëri ñi fi dundee lamb dafa bëri ñu wax ko dafa promoteur personnel promoteur inter boo xamante yow soxla sax même bu augmenté billet bi sax bu la nit ñi di ñaan di ñaan sax franchement ben hein, euh, rafetluñ ko parce que promoteur mu dem sa amateur sans amateur amateur mu dem sans promoteur mais promoteur mënu dem sans amateur te promoteur buñ fi jégoon aussi les amateurs seront des promoteurs demain loolu ça c'est forcé parce que ñi teug lamb yépp ay ay amateurs lañu won ay amateurs lañu won promoteur dal, ak amateur ak mbër ay waye lañu ay xarit lañu nañu waxtaan nañu waxtaan teug lepp ci table bi waaw CNG bu ko nexon mën na bañu woté réunion wóor nañ leen nit ñi réunion gars yi bu ñu ñëwee nañu wax seen doléance yëpp rek bu ñu amul satisfaction nag am nañu droit revendiquer wala am am nañu droit beneen yoon ñu ñëw euh, wax ne ah doléance bi daal lii ak lii ak lii ak lii waxoon nañ ko mais gisuñ ci benn amélioration gisuñ ci dara waaw ñu jégalu ci wax ji ñaak Albert la woon au micro de Mbine yalan TV moo leen doon defal seen émission euh, tous les lundis euh, tous les lundis à partir de 10 heures jëm kaw même fréquence ñu ngi fii nag marché HLM 5. Euh, au centre commercial Caro Noir Blanc numéro B12 c'est John et frère euh, ku bugg ay tissu vous pouvez appeler au 77 555 36 02 77 555 36 02 bi naa laan tigi la émission émission tour choisir tour euh, les commentaires dans YouTube mais il y a 5 ou 6 commentaires 6 de proposition de nom